bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaam ala asrafil anbiyaai wal mursaliin sayyidina wa mawlaana muhammadin il makiin wa ala aalihi wa sahbihi sawi ridwaani wa tamkiin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi amaat mbégte di ñëwaat ak seen eh, tomb bis bi eh, ci sunu ñetteelu numéro. lépp jëm ci dénkaane sëriñ bi ak ab yaram ak ab gindéem ak ak labireem bokk yi tey ñu ñëw ci dénkaan boo xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi nettali woon nañ ko sëriñ Modou Fall Aram Kan mu wax ko ne ko Mouhamadou Fall mu ne ko gay mu ne ko sëriñ bi de daana wax ne yett yëf a ngi nii yoo xam ne ku ko sàllawloo te bàyyiwoo ko ñii wut àdduna seen mbir leeru ma waaye wóor na ma ne moom ñii wut yàlla raw nañ la mu ne ko yett yëf yooyu ko sàllawloo ñii àdduna seen mbir leeru ma waaye wóor na ma ne moom ñii wut yàlla raw nañ la mu di ko déglu sëriñ bi ne ko yett yëf yooyu mooy werante ak biddanti ak téesante nee na yett yooyu képp koo xam ne nekk na sa jikko yow jàppal na ñii wut yàlla moom raw nañ la xamul nag ñii wut àdduna xam ngeen ne werante sëriñ bi tere woon na ko ci laa tuksiru sagwa fakun mutajallidan hatta tasunu naasa annaka mun am tere woon na ko kuy jàng xam-xam wala kuy liggéey werante baaxul day sësale ay xol sëriñ bi nee na kon képp koo xam ne foo seen grand place werante wa ci sa loxo lay nekk nee na yow jàppal na ñiy wut yàlla moom doo leen seen téesante it mooy lépp loo xam ne wax nañ la ko nga delloo ko nit ki téesante mooy ko kokklinte walla walla walla téesante joxalante ay kàddu yoo xamante ni bii dégg naa nangam ci diw nga ne nga dem na ko yow dégg naa ne yaa ma wax nangam di tecc ci li jooja wax loolu téesante ndax mooy jur xuloo bi ci des mooy biddanti ñetti tomb yooyu la sëriñ Mouhamadou Lamine Gueye si waxoon sëñ Modou Alam Fall Modou Fall aramkan na ko sëriñ bi nee na yett la yoo xam ne ko ko sàlloo ñii yàlla moom doo leen seen loolu mooy werante ak teesante ak biddanti yàlla nañ ci yàlla musal ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen joxaat rendez-vous ci beneen numéro wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.